Salut, coach Bamba, coach de l'équipe euh, Malika sur mer. Wa avant tout dañuy wax alhamdoulillah ti ñaan yalla aussi euh, féké ko ci jamm, joué ko ci jàmm jouer ko aussi ci fair play té xamni lepp fo la rek bon match la bo xamni ne ñu ngi koy préparé comme niñ ñu doon préparé yeneen match yi euh, parce que bo ñëwé ci phase euh, éliminatoire direct donc damay yaakaar ni fofu mom amatul tu n'as plus droit à l'erreur lépp loo fay def rek day nekk loo xam ne nii loo xam lay doon te lu pare lay doon sinon njuumte boo ci def rek ça paye cash moo tax match la boo xam ne nii ñu ngi koy waajal bu baax a baax nag waaw match bu ñu ñor la aussi parce que bu ñu fàtte ni daaw Malika sur Mer moom moo jëloon euh, trophée zonal bi kon ren il faut mu ñëwaat euh, euh, def prouver ko moo tax match la boo xam ne ni dañoo ñor lool lool lool vraiment. waaw seetaan naa jàmmalaay aussi boobu ba léegi ñu koy étudier. mais nag football moom euh, li may wax adversaire kenn du ko xeeb te football euh, chaque fois da ngay préparer li dem ba ci biir mu andi leneen moo tax équipe la boo xam ne nii équipe bu ñu respecté la jël nañu match bi au sérieux te xam nañ ni du nekk match bu yomb parce que équipe bu dem ba demi-finale du cuune voilà dem ba demi du cuune donc moo tax match la boo xam ne nii du yomb ci ñaari équipe yëpp. waaw bon pour l'instant dañu concentré aussi suñu demi-finale bi euh, ndax demi-finale la boo xam ne comme ni ma la ko waxee léegi rek daf ñoo ñor trop. motax fim nek ni match sax euh, di parce que demi finale bi mom un match la ni c'est à gagner donc euh, liñu am yépp fa lañ koy def bu jéxé nak lénen luy ñëw ñu ci bon surtout brise de la mer bi nim lay dalé ni est affaire la. <laughs> Ah, waaw waaw équipe euh, la C'est équipe de cœur parce que fa laa judo. ma ngi leen saluer de passage. Euh, tey ginnaaw yàlla ñu bari bu ñuy wax coach Bamba waa bokk xalaat ñoo tax parce que joué nañ lu bare bare ci sama carrière euh, en tant que coach kon dama leen di ñaanal yàlla di leen remercier aussi ci li ñu def coach Bamba tey ba ku nekk naan coach Bamba ba ñeneen mën a bëgg coach Bamba ba di ko gis kon waa bokk xalaat moom sama xol la nekk <laughs> euh, deux ans deux coupes <laughs> zonal ak départemental voilà <laughs> waaw ren moom dama bëgg incha allah suñu ko yàlla may jàmm trois trois trophées yëpp la ñu bëgg bëgg sur mer incha xam nga ba peut-être que ñenn ñi analyser parce que waa jamono euh, ay dirigeants yu fa dirigeants yu xam football lañ ñu ci bari kon amuñu moytu. mais euh, dirigeant parce que football mais supporters yi laay waxal ñu ñu def ci fair play te xam ne la ndax coupe wala def ci leneen kon bu jeexee jeex na te ñun ñëpp ñooy nekkaat di euh, ensemble ci koñ yi di waxtaan ku ci nekk waa jamono am nga xarit Malika sur Mer sur Mer aussi am nañ ay xarit jamono kon dama jàpp ne lépp ci fair play lañ ko war a def mais bu yàlla tuddee ni final la ñuy it incha allah dañ koy joué ñu naxanteeg moom jël ko rek. bi nga xam ne daa moo yoroon Malika sur Mer. waaw est-ce que duuru gën laa xam Malika sur Mer. waa xam nga affaire bi moom euh, du xam dëkk bi mais xam xam xam xam xam fi ngay jaar la. voilà. kon gars yi rendez-vous bi quoi. Euh, non bu nekkee final bu ñu war jouer la. final bu neex lay doon parce que Doudou c'est un grand coach. que je que je respecte beaucoup et je salue de passage euh, di ko wax ni que xanaa final ba bu ñëwee rek mu jox ko sëñ bi rek. waaw ba gis nañ liggéey bi ñuy def liggéey bu am solo la. te euh, football mom mënul dem sans média. parce que boy football ci ruxu te amoo koy wané tamit amul sens kon nañu jàppale wa suñu média te xam ne dañ leen war a jàppale ñu jëm ci kaw incha allah di sant yàlla avant tout di ko commencer di ko terminer ndax loo def ba ñu koy wax lépp yàlla la kon lépp rek dañ koy santaate suñu borom di ñaan àgg ci dimanche te yàlla may ñu ndam lu sedd guy incha allah ñu fekkee côté tal ko merci à tous. salaamaaleykum waa Malika salaamaaleykum yaa yoonu Ndam TV maa ngi nuyu ñëpp man la capitaine Malika Plage ah ñu ngi koy waaj dans la plus grande sérénité rek jàmm laa def nañ daaw. ñu éliminé ko demi final waaw amuñu woon jotam nag ñi ngi woon si régional yi ni say am nañ jotam jox na leen cër bu mot sëkk nag ndax sa adversaire soo respecté loo gagné mais su desee si match bi jotee desee coup de sifflet ñu ñaan lu fi newoon daaw moo fi nekkaat ren nañ jaar fu ñu jaaroon daaw non day yomb day yomb day yomb jàmbalaay bi nga doonoon daaw ak biiram bokkul ah mais chaque année loolu la ñuy wax jàmbalaay daa ñëwaat jàmbalaay daa ñëwaat mais si bal bi tegoo te qualité jeu ak jour fii lépp ñëw leen si dara jox nañu leen cër bu si bal bu xam ne daanaka seen maire bu daaw moo fi nekkaat. mais lan ngay wax ci ah, sensibiliser rek xam ne ni affaire affaire koñ la en fait te biir Malika la waaw ah, su rafetee ñun la su ñaawee ñun la nañ ñëw seetaan ku nekk si par sa la plus grande discipline ak fair play ñu sensibiliser gars yi non à violence rek ñu ñëwaat allah. ah man de si ma dis a euh, nga nawetaan affaire koñ la de soo jëlee booy def si koñ bi ni ñuy muyee la mayo yaakaar naa ñu jóge jógee feneen duñu moye la moyen te travail bi naa depuis 2019 la ba léegi continuer lay nekk ku ñëw da ngay adapté si kii nii maa ngi foofu maa foofu kii laa mos a football jamono laa football kade bu mu fi laa monté si ngoon lépp donc affaire affaire affaire kii koñ la en fait soo ko travail 2019 mooy continuer ba léegi donc ku ñëw da ngay adapté aussi kii nii xam na ne benn benn benn ossature moo fi nekk daa ñëw comme benn branche fi nekk ku ñëw day jàpp kii nii rek yi ñëw après démarrer quoi bon dinañ ñu ñëw rek euh, yàgg nañ leen bëggal incha allah di dimanche incha allah su neexee yàlla yàlla maa ngi jàmm ak salaam kenn bañ a tawat ñu bëgg laa leen incha allah ndam bi ñu bis ñoom final ah dina la gars yi jox leen RV dimanche rek incha allah si yoonu ndam TV mooy mooy teg match bi ngeen ñëw ñëpp en masse ñu jouer football bu rafet non à la violence que le meilleur gagne merci beaucoup